asalaamaaleykum asalaamaaleykum waa Sénégal ñu ngi leen di nuyu bu baax Amana Dia Gamou première vice-présidente de la chambre de métier de la région de Thiès maa ñëw di leen nuyu nag di leen xamal région de Thiès taxawaay bi nga xam ne tey moom la am muy chambre de métier de Thiès ànd ka ak sunu président Amadou Makhtar mu def mobilisation boo xam ne vraiment euh, nekk na mobilisation bu kenn mosta tëj bët une forte mobilisation bu am solo bu am solo boo xam ni def naka tey si région de Thiès euh, mu nekk loo xam ni Sénégal yëpp teg nañu seen bët euh, nekk daal lu extraordinaire kon loolu daal mooy li nga xam ni moom lañ leen bëggoon won ngeen xool image yi ndax lépp lu ñuy wax tam image yi dana ka wone c'est les images qui parlent loolu ñu ka que noonu di ci sante sunu président bu baax ndax euh, région bi yépp yépp tous les artisans de la région de Thiès ñu ngi nekk ci gannaaw sunu président chambre de métier di Amadou Makhtar Sy taxawaay bi nga xam ni def na ka loolu moo tax artisans yépp ànd ak moom euh, département yi yépp ñëw. Euh, département de Tivaouane taxaw taxaw bu am solo ci gannaawam euh, département de Mbour tam taxaw taxaw bu am solo ànd ak waa Thiès euh, département de Thiès nga xam ne lépp doon région bi lépp doon région bi région bi kenn desul kon loolu daal vraiment mooy. image yi nga xam ne daa ngeen ko gis bu ngeen si tegee seen ba xam ne lii leen di wax vraiment ni wuma kenn mobilisé wul mobilisation bu mel ni de waaye kees moom mobilisé na mobilisé bu feeñ boo xam ne vraiment ñëpp xam na nañu kerook si jam ñaajoo kees am na fa taxawaay bu ràññeeku am na fa taxawaay bu ràññeeku ndax ku dugg sa angaar bi rek xam nga ni région de Thiès am na fa taxawaay bu rëy rëy rëy kon loolu yëpp di liggéeyu président chambre de métier de Thiès kon loolu nekk lu am solo loo xam ni moom la nu bëgg wone ñu koy santal di ko gërëm ndax moom su wootee si région bi defe naa kenn du des bu wootee si région de Thiès ñëppay ñëw su wooree si région ku gën a sore si biir région bi dana ñëw kon loolu mooy taxawaayam loolu daf dafa baax ñu xam ka xam taxawaayam bu baax a baax a baax ngeen seetaan film bi xool ko bu baax a baax ñu koy sant na te loolu yëpp ñu ngi koy ànd nag ak sunu ministre de l'artisanat di Pape Amadou Ndiaye taxaw si gannaaw ànd ak moom si liggéey bi di ko jàppale bu baax a baax si région bi di ko jàppale si artisanat Sénégal di ko jàppale bu baax a baax ànd noog moom seen ànd nekk ànd bu rafet rafet kon loolu tam ñu xamee ko noonu ba bis boobu réussite bi mu am am na si une part si euh, réussite bi nga xam ne moo am keroog jam ñaado vraiment région de Thiès ràññeeku na sa am na sa taxawaay bu am solo lépp loo xam ne dañ ko ko mobilisé woon mobilisé na ba mobilisé lu ko ëpp kon loolu itam ngeen xamee ko noonu lu nu ko santoon si mobilisation rek def na ko de taxawaay bu rafet rafet te ñëpp ànd ak moom de si biir région bi si gannaaw euh, sunu ministre de l'artisanat waaw ñëw gi ñu ñu ci euh, département de Tivaouane bon and ak ay artisans yo nga ñu ngi ci différents villages qui mandal Cheikh Diop la ak euh, Gorondoy ak Anta Gueye ak euh, ma Serigne Mor Thioune jógee Bal Diop nekk ay artisans yo xamante ay tailleur lañu bon ñu kontaan l'ol ci ñew bi aussi à travers la chambre des métiers de Thiès président Amadou Mokhtar Sey moom moo ñu dépêché après jëlañu Taïba Ndiaye andi ñu fii quoi. fii ci jam ñaajo ci bis bu am solo bi nga xam ne mooy euh, euh, plateforme bi nga xam ne moom lañ jox euh, sunu mbokku mécaniciens yi artisans yi Sénégal yëpp it ñëw teew fi ànd ak président de la République ci immigration yu muy lu am solo gis ngeen ñu ngi taxawal ñi ñooy association des peintres de Thiès ñu ñëw def délégation bu am solo ngir ñëw teewee cérémonie bi bu ko defee duñ sori ci kàddu gi ñu ngi fi ak président Jacques Gomes ñu bàyyi ko mu nuyoo waxal ñu teewaay bi fii lan moo ko waral président ñu ngi lay nuyu. waaw leen di delloo nuyoo di leen ziar bu baax. Nous nuyu tey euh, artisans yëpp yi teew Sénégal di avons le président de la république bi tax ñun ñu en tant son excellence monsieur Macky Sall di aussi euh, le ministre de l'artisanat monsieur docteur Pape Abdou Ndiaye Nous avons aussi tous les présidents des OPA yi fi aussi euh, di le président Rebas national mi avons xam première partie inauguration euh, euh, secteur artisanal moom lañu ko Rebas du aussi président régional de Rebas monsieur Ousmane Sow Rebas de Thiès nous sommes tous les artisans qui xam aussi ñi ngi fi pour ramener euh, ni tey bi du bésu Rebas mais bésu artisanal parce que ben ne pas de ci artisanal artisanal bi donc nous sommes en tant que une organisation professionnelle artisanale affiliée de chambre de métier di association des peintres décorateurs de la région de Thiès nous aussi nous sommes jëmal des bi

que liggéey bi bañ que la première partie là pour nous Nous na bi parce que fin que koy xaar mooy euh, ci inauguration la cité des artisans Les artisans national war bokk ñu koy xaar fi comme ni mu ko prometté artisan yi mëna am ay dëkkuwaay artisan yi mëna ay bërëb ñu liggéey muy ci ci secteur yëpp nak ñu ko ci xaar kon di ñaax président de la république ko ñaan ne ko lii nii bu mu yem tay rek juste ñu inaugurer ko après ñu tas ku nekk dem mais na am continuité une suite pour que artisan yëpp fep artisan nekk mëna bénéficier wu ci la cité des artisans surtout dëkkuwaay yi ndax artisan soxla nañ ko bu baax a baax baax.

kon sunu ministre tutelle bu ñu wooyee sunu président chambre de métier woo ñu ne ñu ñëw leen kat dañuy parce que seen i nawle dañ leen di teral tey kon dañoo war a ñëw taxawaay ci taxawaay bu rafet moo tax kenn toogul tey euh, artisanat yëpp euh, corps de métier yëpp tey teew nañ fi. gis nañ ne jam Diamniadio tey euh, vraiment kenn xaju fii boo xoolee xam ñëw nañ massivement pour wuyu ko xamante ne mooy euh, président de la république en même temps aussi ak euh, ministre de xam des des l'artisanal mu doon koo xamante ne vraiment moom mooy liggéey liggéey bu am solo foo xamante ne mooy diwaanu artisan bu mu nekkee tey nag yéen ñi xamante ne yéen yéen a ŋànk domaine boobu noonu gis nañ pas mal ay section yoo xamante ne teew nañ fii mais est-ce que gisul leen ne xam li li mu def jam ñaajo tey mu décentraliser ci régions yi loolu dugal a doon loo xamante ne moo gën a facilité euh, ñoo xamante ne ñooy artisans yoo xamante ne ñoo nekk ci euh, yeneen régions yi waaw loolu loolu am solo la parce que lii mu def tey dafa rafet lii mu def lu rafet la parce que son excellence le président Macky Sall ku ko xam ne artisanat depuis ba mu fi toogee ba tey def na ci ay jéego yu am solo looloo war a tey section benn bépp toogul kii yëpp toogul mais euh, wax dëgg yàlla bu ci gënoon a décentraliser parce que ñun en tant que regroupement des tailleurs de la région de Thiès en tant que couturier en tant que tailleur yi bëgg nañu tamit lu mel ni nga xam parce que yenn saa yi gis nga nekk ci euh, boo xam ne ay ñuy jaay jën ak ñuy jaay légumes mais suñu amoon lii tey daf

bon délégation bu 42 personnes vraiment amna ay différents métiers ñom ñep ñew nañu ma ngi leen di di asalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf mbokk yi ñu fii ci jam ñaajo ci bis bu am solo bi nga xam ne mooy euh, euh, plateforme bi nga xam ne moom lañ jox euh, sunu mbokk mécaniciens yi artisans yi Sénégal yëpp it ñëw teew fi ànd président de la République ci immigration bi muy loo am solo gis ngeen ñu ngi taxawal ñi ñooy association des peintres de Thiès ñu ñëw def délégation boo am solo ngir ñëw teewee cérémonie bi. waa tey moom gis ngeen daje bii ngeen gis nii tey ni ngeen ko gisee ne muy tey rek journée boo xam ne journée artisanale la typiquement artisanale tay mu nek programme bu rëy rëy nekk loo xam histoire da naka téye ndax tay président de la république comme ni mo defee rek ci biir réew mi nga xamni def na fep machallah allah bu ne laal naka particulièrement corps artisanal nak mom da ko bëggal bopam am fu mu ko teg def ci lu bare bare def na ci secteur tailleur yi def na ci les céréales locales actuellement fi ci mécanicien la tay mu defar leen sit bu mag a mag foofu si jam ñaajo mu nekk lu rafet rafet boo xam ne Sénégal yëpp teg nañu seen bët tey nag mu fas yéene leen jox caabi ji euh, njuk euh, sargal artisan yi euh, jox leen dayo bu rëy rëy kon loolu nekk tey lu loo xam ne lu rëy la moo tax tey amatul corps de ci amatul kenn ndax cër yu defin bu rafet boobu secteur boo ko def rek corps ay jóg ànd sax ñepp dañuy jóg ànd si lu mel nonu amatul corps de métier ndax lu rafet boko ko ci benn corps de métier rek defal nga ko artisan yépp kon loolu mo war mobilisation bi bi nga xamni tay mo am euh, mobilisation bi am tay man nañu ci ràññee toutes les corps de métier tay ño taxaw tay pour le président de la république particulièrement département de Mbour département de Mbour bi toutes les 16 communes tey kenn desul tey ñëpp tey euh, taxaw nañu commune yépp ku ne def nga mobilisation pour bok ci événement bi nga xamni mom le la président def kon loolu moo waral tey département nga gis nii ni nuy waaj a départ nii tey ñoo ngi xaar yeneen dëkk tey lu mel na caajaay ak segul somoon euh, boo xoolee jas ñoom danu demal seen bopp ndax dañu jege foofu ñun ñëpp dañu daje foofu département bi comme Sindia e la même chose danu daje foofu kon loolu yëpp nekk loo xam ne lu am solo la nga paru kenn desul gannaaw tey si li nga xam ne moo am Joal def bu mag a mag ñoom ñoo ñëw nii tey ñoo ngi fii fekk si waa Mbour ñuy xaarandi tuuti caajaay fekk sinu kon loolu nekk loo xam ne lu am solo la tey si biir département département de ñu de trop si sunu président de ñaanal mu ak sagom li nga xamni mom la biir réew mi ndax ku bëgg réew da ngay sa artisan ya réew da ngay sa artisan ya ba mu président ba euh, def lancer une journée def lancer une journée de l'artisanat artisanat à loolu moy li nga xamni mom la jëk def ba di financer loolu nekk lu am solo loo xam ne mi ngi si si histoire artisanal léegi boobu ba lay tegguwul tànkam fenn ni consommé leen local consommé leen local na nit ñi lekk li nga xamante fii lañ koy bayee moom la ñuy bay di dundee léegi kon nga xam ni suqali ne secteur filière u céréale locale boobu def na si lu rëy rëy euh, euh di teg 3 FPT muy jangal nit ñi di leen former si lépp ba jigéenu Sénégal presque tay ku mokal métier bobu rek toogatoo yaa ngi siy liggéey kon lolu nekk lu am solo lo xamni moko taxawal ci réew mi tay bitim réew bo fa démé dëkk ya gëna soré à l'étranger bo fa démé consommer sunu li nuy bay ni mom lañuy ñuy tay supermarché boo duggu en Europe tey da nga fay fekk céréale locale kon lolu nekk lo xamni moko cultiver taxawal ka ba lolu am solo lool lol nak la def tay si mécanicien yi tay mom la def si secteur couture couture dafa ne école yi au lieu ñu nit ñi di di def sen tenue scolaire kenn ku nek nanu ko jox tailleur yi ñu ñu ñaw ko sunu tailleur Sénégal ño ñaw li nga xamné mom la école di ubbee ren ba paré mi ngi ni di waaj lancé waat deuxième tranche bi kérok lancer nañu ko ak jam ñaajo deuxième tranche bi lay waaj lancer wat néna nanu ko téla joxé pour bu école ubé année prochaine en 2023 xalé yi mën ko sol li nga xam ne ñaw nañ ko bu école ubbee moom la noo sol kon léegi loolu nekk lu am solo te ku ne xam ne ni tailleur si biir Sénégal corps bu bare bare nit la bari nit la mu ne nag kon léegi lépp lu ñuy defati mu jëm si lool te loolu nee na dana ko yaatal ba si santé dana ko yaatal si tenue militaire dana ko tàddi sac à dos ko yaatal si lu baree bare su ko defee tailleur yi chômage dootul amati tailleur yëpp danoonu am loo xam ne danoonu ko liggéey te loolu def na ko si menuiserie bois ndax dafa ni nanu def mobilier national su ko defee bois bi éco table banc yi nga xam ne moom la école yi di utiliser sunu menuisier yi si biir réew mi di ko defar bureau yi sax exiger na que dans les ministère ni lépp loo xam dafay nekk euh, lu nu jum euh, jëfandikoo si bois naka menuisier Sénégal yi liggéey kon moom daal mi ngi bëgg corps de métier yëpp taxaw liggéey comme il faut loolu mooy li nga xam ni moom la président def si artisanat ak yéene ju nag macha allah. Je suis nuyu Sénégal euh, man suis euh, président ci suis président président Revas commune bu département Euh, organisation euh, c'est au niveau national ñu Revas Revas bon département bi nak le président andak ak Adja vraiment ñuy la secteur bi bu am solo li nga di li nga président

lépp loo xamante ni état yëkkati na ko bëgg ci bëgg ko rek fekk na ñun ñoo Il ci loolu yàlla def na xaj euh, dañuy profité ci occasion boobu di inviter ñëpp ñoo xamante ni ñoo ngi jóg ci bés bi tey jii di préparer aussi le 27 parce que Mbour tamit mu ngi préparer lu mel noonu ak Revas euh, di séddale lu toll ci presque 80 parcelles yoo xamante ni mu ngi jëm ci secteur bi Quand tey. kon loolu yi tamit lu am solo la kon dañuy wax euh, président de la république li nga xamante ni defal na secteur de l'artisanat defal ko mécanicien yi wax dëgg fa yàlla loolu lu jara wax ci kaw la ah ñun nag wax dëgg fa yàlla du ñu def lu dul di ko remercier di ko wax tamit mu lawal ko ci biir région yi yëpp rawatina nag Mbour parce que Mbour département la ba nga xamante ni département la ci département yi département la ci biir région yi seen taxawaay ci secteur de l'artisanat aussi euh, lu lu ñëpp gis la ah ñu ci euh, wax deug fa yalla itam jaajal jaajëfal ki nga xamanteni mom moom ñu fi togal di Adja Gamou Kama di premier vice présidente chambre de métier bi ah li nga xamanteni moko moo war ci côté bobu aussi mo ngi koy def voilà donc euh, yaakaar naa ne kàddu yi du gudd euh, muy gàtt ak muy ki lool la xajna dañu nek ci bës bo xamanteni ni bésu le pour ñun mécaniciens yi waaye tamit suñu mbokk yenen artisan yépp gis nañ leen tailleur yu marché yeeg yu yu département bi yépp daal gis nañ leen suñu ginnaw kon frigoriste ak ñépp kon ñu ngi leen di remercier bu baax a baax